waa voilà coro waaw kay jigéen ji nopp jëkkëram <laughs> kontaan naa ci yow milliards yaa ngi ñëw nii mm. yi mala mm. bon comme ni ñu ko waxee rek dañuy daal di tàmbali balaa waxtu bi du ñu dab waaye dañuy ñëw continuité lay doon ci lii euh, Assane euh, daanele foofee la ñuy dikkee ndax li nga xam ne nii moom moo di euh, entretien bi euh, président Macky Sall def ca RFI ak France 24 soxal mbokk internet yi comme dañ ne la toile moom li ñu gën a publier ci internet bi lay nekk waaye itam gën ko commenter aussi moom la ñuy jël pour andi ko bi ñu xëyee ni tey jii gis nañu li nga xam ne nii moom mooy entretien boobu soxal bu baax a baax ñii di mbokk internet yi ba dikkaat ci ci lu mu gën a yaatoo waaye ñoom ñëw nañ yi nga xam ne président Macky Sall daat na koy accordeel yi nga xam ne moom moo di journaliste yi mu jàpp jàkkaarloo woon euh, mu di situation sécuritaire bu euh, continent bu Afrique waaye itam euh, coup d'état bi nga xam ne ni amoon na ca Mali naka noonee ca Guinée dikkaat ci nu mu gën a yaatoo waaye itam na ci ci débat boo xam ne dafa ñeel lii di mandat présidentiel yi fii ci Sénégal waaye itam dikk na ci climat politique bi ci Sénégal waaye ponk yi ci internautes yi gën a jël moom mooy la mu wax ca ne li nga xam ne moo amoon ca 14 ma ca mois de mars ci li amoon ci émeute yooyu nee dootul amati ci Sénégal Sénégal mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk internet yi dañu focaliser wu ci loola yi nga xam ne moom la wax nee nañ daal mbir bi ba tey ji da ko tiital ba tax na fu mu dem day bëgg di wax euh, ci boobu le mbir mooy li amoon euh, mois de mars xëy na lu ko naqari la ba tey jii ba tax na tam wax na ci yeneen ponk lu ci mel ni rek li nga xam ne ni moom moo di ne tam euh, li nga xam ne ni moom moo di ne situation politique bu réew mi nee na daal fi mu nekk nii ci jamono ji ñu ak yéen am na noo xam ne nii noonee lay taxawee waaye tam dafa nga xam ne moom ma koy xaar ca Union africaine mayu ko muy gérer li nga xam ne ni moom moo di euh, réew mi ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo ko publier sax ñoom dumbelaan lañ ko tuddee muy euh, fii ci Sénégal mhm. nee nañ ma nee na euh, mayu ko carrément mu mën a toppatoo li nga xam ne ni moom ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di mbokk internet ci lañ focaliser wu mooy xëy na poste premier ministre bi nga xam ne ni da bëgg a xëy na ci loolu la bëgg bëgg a moo tax muy xaar que mandat Union bi moom moo koy gën a yitteel xëy na ci taxawu réew mi mu taxawu li nga xam ne ni moom moo di dafa mel ni Eh, Assane am na loo ci Assane du ma ko may waxi politique la fi bëgg a wax. Euh, si si il faut mu il faut mu indi ay. Mhm. le chef euh, Union africaine. bu koy utiliser bu koy euh, euh, disons euh, bu jotee mandat boobu du mën am jotu diriger réew mi. Mhm. il n'ose pas dire ça. waaw comme Assane ni mu ko waxee ah. loolu mois de mars mois de mars am na lu mu ci indi lu mhm. yaatu mois de mars incha allah rabbi la mandat boobu war a dugg mais mhm. président Macky Sall boo ko dégloo ci li nga xam ne moom moo di ci entretien bi ak la ñu dagg ci ñi nga xam ne ñoom ñoom mbokk mbokk internautes yi loolee day niroog la nga xam ne nii da koy da koy da koy wax Assane. ba tax na mandat boobee dina tax li nga xam ne nii moom mooy comme ni mu war war a topp toppatoowee nu melaan comme sunu réew mi ni ñu koy waxee rek jolof gi du ko mën ci bu jotee mandat union africaine boobee moo tax mhm. euh, ñoom nee dañuy def euh, allusion à looloo tax mu bëgg a indi li nga xam ne euh, bi nga xam ne ni tey ji mu ngi koy waajaat mu nekk nag des internautes fii c'est une lecture des internautes looloo tax ñu waaw kay ñu daal di koy andiwaat ci plateau bi donc ñoom loolu la ñuy loolu la xëy na tamit mhm. amaguñu benn jot pour dem gën a xoolaat entretien bi radicaliser euh, li nga xam ne nii moom mooy tam euh, euh, ni ñu koy waxeeti la am ca Guinée ak la am ca ca Mali moom nee na du loo xam ne ni préparé nañ ko du loo xam ne xaar nañ ko te loolu tam njiital réew bu nekk xëy na loolu rek nga mën a waxee surtout que ñaari dëkk yooyu nga xam ne nii am nañu jegeñaale ak ak Sénégal la te ñoom jot nañoo dund lu mel noonu xëy na looloo tax mu wax nee du lu ñu xaar te du sax lu ñuy préparé te yaakaar ne la loolu aussi ñi nga xam ne ñoom appuyer ndax ku ne xam na ne coup d'état baaxul ci am réew mais daal ci yooyu grand euh, ci point yooyu la nga xam ne ñoom ñooy mbokk internet yi gën a gën a taxaw que yeneen point yi comme euh, yi nga xam ne ñii di internet yi ci lañ gën a accentué wu mhm. di xam ne coup d'état moom baaxul fenn son excellence euh, monsieur Macky Sall comme ni mu ko waxee coup d'état moom dafay delloo réew ginnaaw mhm. bu ko ñu mën woon waxtaan li nga xam ne nii xew na ci diggante maître ak ki nga xam ne moom moo di benn journaliste. waaw Astou Dione lay euh, wuyoo journaliste bi mu nga fële ca 2STV moom nag ci émission bu muy amal euh, di di mu dippee ko matin boneur émission boobee ni ki démb dafa invité woon kii di maître El Hadj Diouf euh, comme ni mu ni mu ni muy amee rek moom maître El Hadj Diouf ku ne xam na ni showman la. Mhm. su weesoo liggéeyam ak yooyu fu mu dem dina ko dina ko toj tasar comme ni mu koy defee rek démb tas na fa tasar ndaxte li nga xam ne nii moom moo di yenn ci ay question yoo xam ne nii moom Astou da ko ko euh, posé euh, moom maître El Hadj Diouf déjà indiwu ci réponse waaye tam indi na def na ci show boo xam ne ni ci yenn ci ay question ba tax na dañuy jëkk tam ci yenn yoo xam ne ni da koy wax na ko fa euh, ba jote sax ak ki nga xam ne moom moo di astu ci li nga xam ne ni moom moo di ci biir entretien boobu ñu doon am ñoom ñaar moom maître El Hadj dikk na ci li nga xam ne ni moom mooy affaire kilifa Simon ak kii di Thierno Diallo daa dinay nag raxas deru Thierno Diallo ba mu set cambriolage bi ñu doon jiiñ Thierno Diallo sax maître El Hadj Diouf nee na du dëgg benn yoon <laughs> que gis nañu ay li nga xam ne ni moom moo di ay vidéo euh, yoo xam ne moom euh, euh, Thierno Diallo dañ ko ko jàppoon biir kër Elimane Lam ñu def xam nga am na ñoo xam ne ay photo la ñu gis man am naa vidéo boo xam ne te vidéo kenn mënu ko xëy na mën nañ ko truquer mais tru trucage boobu mënul am ñu gis ni Thierno Diallo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay force de l'ordre en même temps ka demoon di ko sàcc ak ay ñooñam ñu tiim ko di ko filmer moom maître El Hadj Diouf nee na taqewu ca laalewu ca te it nee na daal. nee na nee na nee na conda nee na kon <laughs> kon li tax ñu condamné ko nee na li tax ñu condamné ko nee na Thierno Diallo dañu ko jàpp ci affaire de euh, passeport yi nga xam ne ni moom la ji ñoom kilifa loolu loolu euh, loolu maître Diouf te nee na nee na mhm. nee na ci loolu lañ ko jàppoo nee na bi ñu ko jàppee di ko enquête nag ci la daal di euh, wax turu ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di kilifa ak euh, Simon ah. nee na ci loolu nag la ñu sukkandiku nee ci loolu la ñu sukkandiku pour mën ko dem jëli moom tamit xëy na mhm. bu ñu déggee mu wax loolu te moom Thierno Diallo bi ñu ko déggee entretien aussi ak pap Alé Niang dafa mel ni ñoom ñaar dañoo déggoo ci loolu nga xam ne lañ la ñu wax mhm. ah, bi euh, kii génnee bi kii génnee ak entretien ak Pape ba ci suba ga rek la Thierno Diallo bi Thierno Diallo pare ak entretien ak pap Alé Niang ba euh, affaire bi siiw euh, ci la maître El Hadj Diouf di nangoo ñëw 2S parce que wax na ko ci biir ay waxam nee na a ma doon topp deux ans pour ma ñëw ci seen émission ñëwuma xëy na kon loolu la doon ñëw pour firndeel ko mhm. plateau la woon boo xam ne nii mën na ñëw pour kii distance sax ñenn ci ay internautes yoo xam ne dañ doon dem ci live Facebook boobu ci émission bi di wax ne Astou da yambar comme journaliste da tooy waroo nga euh, développé ak moom lii na liggéeyam ca nam ko gën a waree xëy na tam ku ci nekk rek ni nga mel xam na du du benn coro boo xam ne boo jàkkaarloo moom moom di nga wax ni nga face à un animateur là sérieux mm-hmm. mënuloo tegal loo xamee ne que lu convaincant la rawatina. Mhm. journaliste bu mel ni Astou Dione. ku ne xam na ne que Astou Dione c'est une fille fille vraiment qui est respectable. waaw dëgg la euh, ginnaaw waaw ginnaaw kii euh, nii dëgg la waxu fa loolu seen point de vue la concernant li nga xam ne nekkoon na benn émission entre maître ak benn journaliste. Mhm. léegi euh, dama bëggoon ñu waxtaan li nga xam ne moom moo di moox doom yi benn. waa su génn àddina fële na stade Ngalandou Diouf bi. Mhm. Euh, ak famille wam euh, nu mu nu mu demee bu fekkee mën nañ cee jot. waaw comme ni ñu ko waxee euh, indi nañ ko mardi ak violence yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci sport bi fii ci Sénégal rawatina làmb ji naka noonu ni lii di nawetaan ki ren ji 2021 bi dafa daal di metti lool lool lool ndaxte gis nañu que yenn ca stade ñu ngi koy yàq waaye itam ay xeexoo mi ngi am agression yi après lee nawetaan ak yooyu ba tax na niki dem ba niki semaine passée stade Ngalandou Diouf gis nañu bàyyi ndooy bi nga xam ne nii di xale boobee euh, toll ci ñaar fukki at daal di ñàkk bakkanam foofee ci stade bi euh, bu fekkee ni sax li nga xam ne ni moom moo di autopsie baak yenn yi ñu ngi koy xaarandi bu baax a baax ngir euh, gën a xam ana lan moo ko faat bu fekkente ne am na ñeneen ñu xam ne dañoo wax ni asma la amee donc ci bousculade bi amoon foofu moom ci la daal di fattee ba ñu koy rawale gis nañ mbër mii di neex tam daal ci indi ay leeral que mm. moom bokk na ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo jëloon xale bi ngir di ko rawale di ko sauver ba mu eggee la ko kii di docteur bi daal di ne ko euh, euh, xale bi ñàkk na ba kanamam nam sax daan nay évoqué ay coono yoo xam ne daj na ko ci otoom mu war a jàll dem sauver koo xam ne nii dafa nekk ci du diggante dund ak dee nee na dem na ba otoom ñu yàq ko ci yoon beeg yooyu mujj gi dafa jël xale bi boot ko daal di yéeg ak moom ci benn jakarta wala scooter sax comme ni nga ko waxee pour daw mën a dem ci ci hôpitaux yi ngir ñu mën koo sauver mais nee na malheureusement xale bi daal di succombé ci euh, blessure yooyu nga xam ne am na ko ci stade bi ba tax na tam euh, ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñenn ci euh, sunu mbokku internet yi waaye tam site internet yi dem nañu ci kër xale bi nga hmm. xam ne ni moom moo ñàkk bakkanam ngir teewlu ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay waay juróom ci loolee nag la am benn waajuram bu wax lu am importance jur bi nee na moom tànta la ci xale bi moo ko yaayam ñoo bokk ndey ak baay moom ba affaire bi di am mi ngi ko fekk ci stade bi ndax nee na xale bi ñëw na ba ci moom moom maire bi dafay jaay ay lekk foofu ci biir mhm. stade bi mhm. nee na euh, xale bi ñëw na ba ci moom daal di jënd yëkkati 500 francs jënd crème ba ñoom ñaar sax ñuy werante dama lay may ak duma la may comme yaay ak doom rek nee na xale bi daal ne ko kon teel téeméeri daal dem moom ci bi muy wax ak ni mu euh, amee naqar nee na daal naqaru bi nga xam ne ni am na ko moom yàgg na koo am ci stade bi naam sax day soog a dal ci doomam ak ku ko mhm. jegee ndax nee na euh, yàggul dara moom moo def témoignage vidéo yaa ngi ci biir internet bi nee na yàggul dara am na ci benn pa boo xam ne nii dafa daal di ñàkkoon bakkanam ci stade stade bi Ngalandou Diouf te nee na bi ci euh, euh, biir match bi la la la étouffé daal di ñàkk bakkanam te nee bi mu ñàkkee bakkanam après euh, arrêté match bi defuñu dara lu dul nee na ay ñi fa nekkoon GMI yeeg yooyu mooy force de l'ordre yi ñoom ñoo ñëw daal di taxañ taxañee affaire bi daal di dugal ci ambulance daal di yóbbu ñu continuer waat di nga xam ne ni moom moo di match boobu te nee moom lecture bi mu amoon mooy lii tôt ou tard dina fa am ndax nee li mu gën a déplorer mooy taxawaayu force de l'ordre boobu nee na du ñu taxawee seen taxaw benn yoon nee na da nga ciy gis ful bu bari nekk ci kaw ci kaw euh, turbine yi euh, nee na ay paa nekk ca ay mag nekk ca ay maire nee na ñoom ñi nga xam ne ay maire lañ nekk ci kaw di jaay da ngay gis bu euh, tuuti wax amee rek da ngay gis ñoom dañuy jël ay lekk lacrymogène hmm. sànni ko ci biir ful boobu neena na loolu mën na indi ay yeneen ci ay jéyee hmm. yeneen ci ay jéyee yoo xam ne nii mënoon na sax romb nee na fii nga xam ne nii fa la toll ndax am na naqar déjà ci doomam bi dem mais tam naqar bi mu gën a am nee na mooy stade yi ak na mu demee mhm. ak force de l'ordre yi nee na nan la ñuy kiwee te nee na euh, moom dem na sax bay yëkkati kàddoom nee na moom papam policier la mais ñaanu yàlla benn doomam sax nekk force de l'ordre ndax nee na ni mu gisee seen jikko ak façon bi ñuy defee nee na ci li mu dund ci biir stade bi nee na loo xam ne ni lu jara taxaw seetlu la bala ñuy wax ay nawetaan ak ay nañ bàyyi nawetaan nee nañ xoolaat diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, sunu ñi yor sunu kaaraange ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan bi ba pare donc mu nekk ay points yu am solo yoo xam ne internet itam bàyyi nañ ci xel taxoon ñu déjà en fait en 30 secondes déjà damay appuyer encore li nga wax parce que. <laughs> en fait dama seetlu benn mbir man je suis man je suis de Rufisque. ñoom ñooy ñoom ñooy <laughs> entre guillemets je fais pas pour discriminer wala yu demee noonu. Mhm. mais dafa am ay yenn équipe yoo xamee ne que bu ñuy football. Mhm. day mel ni force de ils sont ils sont sous pression. pour ñu génne seen seen force euh, euh, seen ay ay lacrymogène degee ne tiire ci kaw booy en fait c' est comme un bonjour. Mm-hmm. te loolu le plus souvent c' est des équipes yoo xam ne ñu ngi nekk ci tefes yi. Mm-hmm. xam nga comme ay exemple mën naa wax Thiolène. mën naa wax ay kii ay giif te yooyu c' est des équipes ci tefes lañ ne. Mm-hmm. équipe yooyu dafa mel ne dañuy dañuy dañuy dañoo tiital les forces de l' ordre ce qui n' est pas du tout normal dañ leen di stigmatiser beneen bi. waaw ñoo mais mais mais coow mooy lan. mi fédération mi ñuy def nawet yi def ñëpp dañoo war a wut li ñuy wax stade. mais non am na non non non non yi am na stade am na fa. mais foofu la ruy ci seen jëm bopp day metti coro coro ma daaneel benn benn bi rek en fait euh, euh, au delà de de de la mort nga xam ne mooy mooy c'est le paroxysme mais am na yeneen ñu ñu nga xamee ne que maanaam dañoo dañoo dañoo dañuy am ay blessures yu metti mhm. ma gis benn nit boo xamee ne benn nit à Rufisque benn nit c'est boo xamee ne dafa jël génne xaalisam ne moom il prend en charge ñooñu nga xam ne ñoom ay blessé il a dépensé près de un million et quelque yaa ngi comprendre te si si Thiawlène googu la dëkk donc déjà ma koy ma koy saluer ci loolu noonu je pense que mës naa gisee ak moom nga mës naa gëj moom yàgg na mais loolu dafa rafet quoi c'est vrai c'est vrai ñu daal di rek jeexalee ak li nga xam ne ni moom mooy beneen xew-xew boo xam ne vidéo bi mu ngi daw di circuler bu baax a baax ci internet bi euh, mu nekk nag vidéo boo xam ne kenn mënu koo teg ci télé di ko seetaan ndaxte euh, xool du ko du ko nangu mu nekk benn femme bu ñu gis mu jàpp benn xale bu jigéen di ko di ko dóor mën nañu sax euh, xëy na dañ doon xeex ndax xale bi gis nañ ko moom tamit tamit ca nañu ko jàppee muy fippu waaye dañuy gis kii di ndaw si daal di sex euh, bakkanu kii di xale bu jigéen bi matt ba mu dëgër ku ne gis na vidéo bi bu ñu paree xëy na ñi ma bokkal plateau mën nañ leen ko mais du vidéo boo xam ne euh, mën nañ ko teg ci télé te xam naa ni mbokk internet yi nga xam ne sax nañ di euh, seet di nekk ci fii di internet bi waaw xam nañu bu baax li may expliquer lii bala sex bakkan bala sex presque sex na ko ay 30 secondes yoo xam ne ni xale bi mi ngi yooxu expliqué moom tamit pour kooku bàyyi ko mais ba mu ko bàyyee bi xale bi fexee ba rëcc da koo jël euh, sa euh, paan yi nga xam ne nii sumb la woon di fóot dafa jël bopp xale bi xooj ko ci biir paan bi bës ko ci xale bi tam waat ba lii mu jël euh, yaramam moom ci boppam te moom ak xale bi ëpp ko daal di té yéeg ci kaw xale bi loolu nag bi mu amee ñun def nañu suñu ay recherche def nañu ay quelques kii yoo xam ne nii pour topp information bi jëkkër ji nee na moom jëkkëru ndaw si moom moo ko wax nee na jabaram dafa violente déjà nee na moom euh, ba mu sëyee ak jabaram depuis sept ngi nii deux euh, ñaari gos la ñu am ñaari xale la ñu am mais xam na ni jabaram bu ko bàyyee dina dem ci yenn ci jëye yi jëkkëram nag moom moo filmé loolu nga xam ne moom mooy vidéo boobu ci ba muy dóor xale bi ngir waaw déedéet xaar xaar ma ñëw ngir mhm. indi firnde ci li nga xam ne ni moom lay wax ah, ndax nee na jëkkëram nee na moom ci boppam moom la jabar jabaram njëkk a Mm-hmm. moom nee na da wax na ko sax ci interview bi euh, Marie Bacchou yi ñuy wax xëy na moom <laughs> waaw mën na saa nekk seen président actuellement ci ñuy wax ci jigéen ak soxoram ba tax na xëy na ñàkk na doole doole boo xam ne ni nee na à chaque fois da doon dem police mais bu waxee rek euh, ndaw si da ciy daal di génn looloo tax cette fois ci mu jël euh, vidéo mu jéem a jël vidéo pour mën a indi firnde ci li mu wax te ba mu ko jëlee dafa daw dem ba police ngir mën leen ko jox ba mu dikkaat nag ci li nga xam ne moom moo di affaire bi nu mu demee xale bi domestique la ci kër koo jëloon di ko fay di fóot yëre xale yi mu ne ko mu génn ñeenti yëreem daal di koy sànni ne ko fóotaale ko xëy na mësul am ak xale bi jàmm xale bi jëkkër moo ko jël pour mu dimbali jabaram ci biir kër gi mu daal di génne eh, yëre yi ne ko fóotaale ko sama sama ay yére la xale bi ne ko bàyyi ba suba ma fóotal la tey ma fóot yëre xale yi loolu moo indi wax ji mu dem jëli kuur ci waañ bi ñëw di ko dóor xale bi jëkkër ji nee ba mu nekkee di dóor xale bi ak di di ko violenté jëkkër ji nee na ci laa nangu kuur gi ba mu ko nangoon nag mu fekk xale bi noonu ci biir paan bi xeex ak moom def ak moom noonu te mi ngi mel ni yaay doom la daal mën nañ ko ko jàppee noonu mhm. ne xale euh, xale bu ndaw la ak ak lii xëy na dañ ko dañ koy gën a topp incha allah dinañ ko gën a topp mardi comme la toi dayamaan dinañ ko gën a topp incha ñu gën mhm. koo yaatal coro ma bàyyi laak euh, nga tàggatoo li nga xam ne moom moo di mbokk téléspectateur bu du yem fii di joxe dig daje rek ni ki suba incha ci beneen petit déj ak beneen équipe équipe bu mairie comme ni ñu koy waxee <laughs> bu waa ñu ñëw fii rek ñu nit melasti comme tout le monde waaw voilà comme ni ko waxee di jox dig daje suba ak équipe bu mairie parce que ñun euh, jeexal tey ak ñoom ah. Coro. waaw <laughs> oh, nga doo maire. man maire oh, euh, comme ni mu ko waxee ah di leen euh, jaajëfal euh, di kontaan ci yéen ñi saxoo di ñu seetaan fii nii ci Walf Fadjri la voix des sans tax nga tax boo goree dëgg danga koy naan yaa tax ah sama yaay booy di nuyuwaal ki nga xam moo di sama pap ndax moo ma tànnal ki nga xam ne moom moo di yaay ji gën yaay ju yaay ju baax sow pour la jéeri borom nag ak meew di nuy waal ñi nga xam ñooy samay magu yaay samay mbokk yaay euh, waa Malika di nuy waale tamit fi ma dëkk mooy euh, waa waa Cambérène xam naa ni di ngeen ma manqué torop dina am habitude yeewu 6 heures te duma ñëw plateau xam naa dañuy joxe dig daje ba lundi incha allah ngeen xam ne je vous fais un gros bisou et vous allez me manquer durant tout le week-end allez